marginalisé je trouve le mot un peu fort quand même euh, mais je peux dire que bon message la bu may lancé aux autorités pour que ñu xam ne euh, certes il y a le football il basket ak yeneen ak yeneen mais arts martiaux yi c'est pas pour nag <laughs> dévaloriser défavoriser yeneen kii mais arts yi li muy li muy def ci jeunes yi médaille football ko. non indiwu ko ñun li ñu am ci titre moom amul benn sport collectif boo xam ne moom moo koy moom moo koy indi mais au delà de ça au delà des titres dafa am benn rôle éducatif bi nga xam ne les arts martiaux ko am ci jeunesse bi donc boo xoolee lu mel ni pratique de la savate donc j'invite euh, à travers votre antenne pour que nit ñi gën koo pratiquer parce que déjà am na benn discipline ak benn éducation boo xam ne daf koy def c'est les jeunes. Mhm. booy xoolee ñiy pratiquer les arts martiaux d'habitude ils sont des personnes calmes. ñiy pratiquer les arts martiaux ils ne pas dans la violence. Mhm. donc ne ce qu'ils font mën na nduru loo xam ne lu violent la mais d'habitude dañuy am benn contrôle de soi boo xam ne c'est à travers l'éducation bi nga xam ne moom la def ci ñoom. Mhm. ba loolu mën a am boo xoolee dëkk bi daanaka jaxasoo am na tension politique am na am na solution pour que tension yooyu yëpp c'est la raison pour laquelle comme ni nga ko waxee je dirais marginalisation peut-être euh, c'est trop fort mais quand am na rôle bu rëy rëy boo xam ne d'abord le ministère des sports war na ko def pour jàppale ñi nga xam ne ils font les arts martiaux déjà je vous ai tout à l'heure qu'on champion d'Afrique depuis boobu nag bon on a écrit des correspondances au ministère on a écrit des correspondances à la présidence on a écrit des correspondances mais jusqu'à présent on n'a pas encore été reçu bon j'ose espérer ba léegi j'ose espérer que euh, dinañu dégg mën na recevoir au moins xale yi parce que xale yi dañoo def jaloore goo xam ne jaloore gu rëy la déjà dëkk bi ñu demoon Yaoundé euh, fu suñu mbokk fu la leen fa jaar jaar fa def fa seen jaloore bi ñu see ci aéroport bi ba ni ñuy compétition bi daanaka métti woon na trop trop trop métti woon na ci staff bi métti woon na ci euh, ci xale yi ndax des bâtons sous rek c'était très très très très difficile parce que dañuy wax ne sénégalais yéen a fi jaaroon def fi jaloore ngeen dem mais n'empêche ni mu métti noonu yëpp on est allé tamit dans très difficiles mm-hmm. lañ demee au niveau de Yaoundé mhm. on a remporté li nga xam ne moom mooy championnat d'Afrique en ñu dellu waat bi ñu dellu aussi c'est très compliqué pour xale yi très compliqué aussi pour la fédération c'est la raison pour laquelle je lance un appel au ministère je lance également un appel à la présidence. Vous avez été champion d'Afrique euh, voilà. mën naa ne sénégalais yi sax ñi ko ci xam bariwul euh, ministère bi wala boog ñi nga xamante ni ñoo ŋànk mbir mi wowuñu leen euh, defuñu benn effort est-ce que dafay wane ni ko fulaaluñu li li ngeen di def. Euh, buñ ko fulaalee tamit des na. ok waaw buñ ko fulaalee tamit des na. ndax valeur ni ma ko waxoon tout à je pense que football ak basket rek nekkuñu fi. même si je pense que ñoom dañu am seen budget yi nga xam ne. seen budget bopp la. Mhm. mais ministère war na gën a bàyyi xel. Mhm. arts martiaux yi parce que je pense comme je l'ai dit tout il faut que nos dirigeants soient aussi conscients ci impact bi nga xam ne. Mhm. arts martiaux yi am na ko particulièrement la savate. parce que savate dafa nekk art boo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy pratiquer wala ñi nga xam ne xam nañ ko tout le temps dañ ci gis des bénéfices comme je dañu fa nekk on est très présent au niveau de la banlieue on est très présent à Guédiawaye à Sam on est très présent là-bas te da gis impact bi nga xam ne les résidents yi nga xam ne dëkk nañ ko dañ koy gis par rapport ak xale yi nga xam ne ñun moom lañ tey di leen di leen yar